Buzz Sénégal Actu jërëjëf jërë ngeen jëfari mbokk internet yéen ñuy topp seen chaîne bi di Buzz Sénégal Actu dal leen ak jàmm tey la alxames fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai 2024 ak jàmm ci xibaar yi gën a fës ci bis bi opération test droit clandestin yi nga xamante ni suñu force de défense et de sécurité yi commencé ko foofu sa diwaanu Kédougou mën nañ ne nag boobee mu ngi woy ba léegi rawat na sax fi nga xamante ni moo ci diwaanu Saraya ginnaaw jura yu ñu bi nga xamante ni moom lañ weesu na le waaye nag ni bu gën la te ñi ko def nag ñi du ñeen ñu dul suñu force de défense et de sécurité yi. boobu nag mu ngi nekkoon fële nga xamante ni moo di Musala te mu bokk si biir biir commune bu démboo juróom boobee nag mën nañ ne biñ ko tasee nag jàpp nañ ci fukki doomu aadama ak juróom benn ak juróom-ñett yoo xamante ni nag nekkuñ sax ay Sénégalais yi fukk ak juróom benn nekk ay burkinabé waaye nag ñaar si des nag nekk ñi nga xamante ni ñoo di ay Maliens. ñooñe nag mën nañ ne sax déféré nañ leen ci kanam ki nga xamante ni moo di procureur bi nga xamante ni moo féete foofu sa diwaanu Kédougou loolee nag mën nañ suñu force de défense nag di sàmm li nga xamante ni moo di suñu àll bi pour nag bañ kenn koo xamante ni daal mooy ñëw pour di ko yàq di ko caxat-caxatee ñooñe nag mën nañ ne doon gas li nga xamante ni sax moom la ñuy waxee or te nañ ko soon gasee jaaduwul te amuñu woon ci tamit li nga xamante ni moo di benn euh, ndogal bu ñu jógee kay dugg googee dañuy wax ci beneen jafe-jafe boo xamante ni Sénégal yi dund nañ ko démb ci guddi mu nekk jafe-jafe boo xamante ni bu taratar la te xibaar boobu ñu jëlee ko fi nga xamante ni moo di ci RFM loolee nag mën nañ ne sa courant boo koy dugal daal dafa yëfi contour bi day bañ ndax li nga xamante ni moo di code bañ lay jox boo ko dugalee si contre bi compte boobee nag du nangoo dugal li nga xamante ni moo di code boobee waaye nag mën nañ ne waa Senelec ba ba jamono ji ñuy wax ngeen daal du nii nag mën nañ ne amul benn communication boo xamante ni def nañ ko si lu ni mel